garaawul mooy ma jox ko kii Pape dama bëgg xam rek ah. mun na ko sa ji garaawul au fur et à mesure bëgg xam je veux juste savoir kan mooy dem <laughs> Pape Ousmane Pape Ousmane mooy dem. incha allah kuy dem Israël. Euh, Ngone. d'accord très bien. maa kuy def médiation ci seen diggante ñoom ñaar kuy coordonné. aram kuy coordonné aram. aram il va gérer bien kon ba tey baax na activité man ma gérer café loolu du problème ayca. ci weeru avril atum 2024 na ngeen yeewoo internet yi na ngeen def namoon naa leen. ñu tàmbali ak 24 heures. 24 mhm. heures chrono mu ne professeur Ahmed Ndiaye c'est un professeur ma may la ci paragraphe bu gàtt rek mu ne les institutions de ce pays sont profondément parasitées mu ne pour moi moom pas man de moom yaa ngi mu ne la rupture annoncée n'aura pas lieu si elle n'est pas prise en charge dans un corpus constitutionnel global à travers une nouvelle constitution qui nous projetterait dans ce que j'appelle la troisième autonomie du Sénégal indépendant moom daal loolu ci ay gis-gisu boppam la ci waxtaan bi nga xam ne séq na ko ak yéenekaay bi Pape Ousmane boo ci bëggee lu la leer yëral yéenekaay bi nga xam ne moom mooy 24 heures chrono bi ñu xëyee tey ci suba yi ginnaaw 24 heures ñu ñëw ci beneen yéenekaay Sud Quotidien mu ñëw ci crise de leadership au sein de Benno réunification programmée de Yewwi Askan Wi mu ne ces défis de la nouvelle opposition ndax coalition Diomaye président bi dafa nekk presque en roue libre noonee la ko journal bi tam non on aurait dû démarrer par cette page nécrologie mhm. avec le décès du journaliste formateur Mbaye Sidi Mbaye qui nous a quittés mhm. pour ñu féddali sunu njaal famille et puis toute la presse sénégalaise ñi ko xamoon de près ou de loin ceux avec qui il a eu à travailler et à collaborer euh, en tout cas témoignage yi ci moom Euh, mhm. rafet na donc rafet na ñu njort itam mhm. euh, vraiment ci quitté euh, bi mu ñu quitté moom Mbaye Sidi Mbaye yàlla na ko yàlla mhm. yërëm ci xare ko aljana yi gën a kawe ñu koy jàllee toute la presse sénégalaise nos condoléances émues à tous ceux qui l'ont qui l'ont connu wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy jàllee bu baax fa la ñu waroon tàmbalee Mbaye Sidi mbay mënu fee jóge ñuy xëy suba di def bloc d'info te duñu ko njëkkee waaye xel day fatu heureusement que tu es du euh, ñu rafraîchir la mémoire. Mhm. ñu koy jaale Sénégal ak toute la presse. Mhm. waa correct euh, mhm. ñëpp rek ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax. wallaay ëttu yéenekaay yëpp. di ma masawu nag surtout ñi nga xamante ne jot na jaax ak ñoom liggéey ak ñoom. tribune ñëw ci crise financière mu ne Diomaye dafa promettre le meilleur. mu ne waaye son ministre des finances moom li mu prédire mooy le pire ndax Cheikh Diba nii mu ne avait pourtant préparé et bouclé le budget euh, de ay man nag milliards yi bu bari rek man ma réer <laughs> aram lii li lii lii jiitu balaa point bi ti ci dimbali ngir yàlla bu dee mën ngaa lire. c'est sept mille. sept milliards sept mille. sept mille trois milliards. waaw sept mille trois milliards six milliards laissés par Macky Sall journal bii daal nee na Diomaye bëgg-bëggam moom ci réew mi wax dëgg yàlla mooy mu neex mu naat waaye coow la mooy kees. <laughs> bu ndee wax ci wàllu finance ba nee na ministre nee na boo yeboon nag on s'attend vraiment au pire mu ne état des finances publiques 15 milliards de dettes tenez-vous bien le gouvernement du président Diomaye mu ne ndax am na ay capacité fiscale pour mobiliser vous yaa ngi koy wàññi sax 15 000 milliards de dettes 15 000 milliards waaw 15 milliards na ko wax pardon mhm. merci 15000 milliards de dettes mu ne gouvernement wu Diomaye bii ndax am na ay capacité fiscale pour mu mobiliser li nga xamante ne moom mooy ressources yëpp mm-hmm. les pistes de solution yi nga xamante ne économiste euh, May Sababu def na ko ci yéenekaay bi tam mën nga ko ci yër supposé bésu euh, prix wu euh, mburu mi bi ñu ko annoncé ba tey ñi sant Touré ñi sant Cissé ñi sant Mbaye ñi sant sant yooyu ngeen xam ne seen sant yi neexul baaxul yaa ngi dégg commencé de la fédération des boulangers nee leen ndànk rek aram li ko daan jëndee nga koy jëndee doucement <laughs> ñu ne wàññeekuñ ko Pape Ousmane pour nga bañ a gaaw a yàkkamtee jënd bëri xaar leen tuuti borom chocolat Nutella yi yaa ngi dégg ak borom sauce macaroni yi donte nag président Diomaye moo falu moo nekk ci réew mi séeréer yi nee ne une capp une sauce une téeri <laughs> waaye mburu mi wàññeekuñu ko ginnaaw waaw ah Nabou ci nga bokk nag le regard mu ne primature <laughs> Ibrahima Gueye nommé nañ ko euh, directeur de cabinet bu premier ministre waaye ci suuf itam yëral passation de service yi nga xamante ne commencé na am ci diggante Ngoné Saliou ay dama juum hmm. Ngoné baal ma mën euh, damay fàtte yaa ngi waaj am poste nag ndax li tax ma juumee ko nii moom ah, Ngoné Saliou sa poste xeeñ na ma nii mhm. bés bu nu la tabbee na ba fal na nag Ngoné bu boobaa na nga fàttaliku sa doomu ndey man du dëgg <laughs> waaw ah, man bu ma jox post bu dul jox ma rek post boo xam ne damay tëdd muy muy dox. ak ah, di bërëb muy dox toog muy dox ci dëkk bi. ah gasi. waaw ñuy bërëb muy dox na. fan la ñu bërëb muy dox ak di tëdd muy dox na. amatul. ah Ngoone Saliou nag Ngoone Saliou génn ci yi nga nekk ginnaaw passation de service yi yéen kaay bi mu ne le gouvernement est en train de mettre le turbo. fu mu nekk nii nag page passation de service yi tourné nañ ko ministre gouvernement Ousmane Sonko yi jël nañu connaissance mu ne ak seen ay dossiers yi nga xamante ne mooy dossiers yi gën a urgent yi ñu war a taxaw enseignement supérieur collectivité locale moom kaala la décrété nañu grève boo xamante ne de cinq jours cent vingt heures voilà te il va falloir que nag quand même les collectivités locales ñu régler seen problème bi parce que la grève elle perdure depuis un bon bout mhm. j'ai l'impression que soit ils pas le bon interlocuteur ou on n'arrive pas à trouver les solutions vraiment pour que collectivités locales yi mën a reprendre normalement il va falloir y penser sérieusement le commerce nañ ci wax l'élevage mais euh, également ces ministres qui n'auront pas un état de grâce ñëw ci beneen euh, yéenekaay ginnaaw le regard yor yor mu ne Prodac Gates Mm. retour sur les lieux du crime aucun rapport fu ma jëm ak rapport ñëwati nga rapport rapport du man ñii ñoo may imposer rapport matin rapport midi rapport soir rapport bu ma tëddee bu ma yeewoo rapport heure bu ma yeewoo rapport c'est-à-dire bu ma gëstoo rapport bu ma jàddee koñ rapport bu ma seetee arab rapport Pape rapport bi Ngoné Saliou dikk ak rapport Nabou di kaat ci rapport et di wax ci rapport nu ngeen bëggee ma séparé rapport <laughs> <laughs> yéenekaay bi nee na amul benn rapport <laughs> dégg leen rapport ma koy waxee <laughs> de la cour des comptes mun na ko blanchir maam bay ñaam maam bay ay barki si bamba bi mu ne la signature d'un marché de gré à gré avec la société Green 2000 mu ne est entachée d'illégalité mu ne article 76 bu décret numéro 2014 12 12 moo koy fësal beneen bi ma dikkaat mu ne les responsabilités ou la responsabilité de Mame Mbaye mi est clairement établie article 27 du code des marchés publics ma ñëwaat wala article 28 alinéa A mu ne du code définit clairement l'identité de la personne responsable du marché en ces termes les personnes responsables des marchés sont pour les marchés de l'État et dans chaque département ministériel, le ministre chargé du département concerné point. yaa ngi dégg kon Mame ak li ci yéenekaay bi wax nii ak li ngeen di déewante ci rapport bi fii ah. ci biir plateau bi fii jëlee naa lépp ñu ngi jéggalu ginnaaw yor-yor. Mm. mu ñëw ci beneen ëpp yéene kaay su dëkk boo xam ne rapport rek mënu xëy rapport rek la ñuy waxtaan. Ah, eh. source a le premier ministre mu ne Ousmane Sonko attendu au building administratif PM day dem bi mu ne les dessous nag d'une visite à travers ce déplacement le chef du gouvernement dafa bëgg fixé wu sur la capacité de ce joyau. seer na boo xam mu ngi coûté ay milliards et milliards mu ne abrité itam ay institutions de la république ñëpp ñu ci biir building administratif suit le barki sëñ Bamba ñoom ñëpp dañoo dem muusu ci biir building bi mu ne dana fa dem xool yëri lii nga xamante ne moom moo fa nekk ca institution xaalis ba ñu fa dugal koppar ya yooyu yëpp dana ko saytu mu ne ce qui permettrait au régime président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nii mu rationaliser les finances publiques beneen bi mooy ancien dignitaire au régime yi lebbi passeport diplomatique yi nga xamante ne moo lëmbee réew mi mhm. mu ne et leur sortie du territoire national ngeen génn du ñu kale ana passeport bi ndax bu normal nga yor bu nay aram nga yor wala bu diplomatique nga yor mu ne les restrictions de Diomaye journal bi mu ne Gris Bordeaux taayaat le ministre Birame Souleye Diop après sa sortie mu ne il a parlé comme lan m gi moom mub lan la ah, point ah point point ah point góor <laughs> yow kii nu mu tudd Adam nee na point a ni baax na. c'est pas moi. bu leen ma ko jiw. donc tey on va on va dire la la revue de Mamy et d'Aram. ndax moom moom point point yi. waaw c'est que Aram. yaa moom am. Aram def na ci point. waaw. il faut trois points de suspension. man yéen a kaay bi am la m bu ma mënoon laaj nga woon ne point. waa léegi bàyyi point bi kon point ah man kay bàyyi naa point bi l'indépendant mu ne confiscation des passeports diplomatiques coow li neex de début de calvaire mu ne du maquis entre Euh, ñi nga xamante ne xëy na amaana ñoo ànd ak moom man ne njëgub mburu gi nu waxoon nañ ko wàññi amul wàññiwuñu ko njëg laa nga fa mu nekkoon ba tey l'observateur mu xëy euh, yër li nga xamante ne moom mooy euh, le ratio mu ne de sacrifice la contraction des prix les dépenses fiscales indésirables et les risques de plomber les finances publiques le journal nous en parle mais puis la vie carcérale également de na nañu ko fàttali waar raconté ko waat beñe yi yaa ngi beñeek dugub bu saf suukar jooma moo ko moom ah banaan bën a suukar bu saf neex mami moo ko moo ko mu ne les beñeek les biscuits pendant le xëdd mu ne son éternel sourire ca reetaan gu rafet ga mu ne waaye itam et la lecture joomaay da doon lire fu mu mën ci tollu yaa ngi dégg da doon jàngalee lettre de l'alphabet A B C D ba Z mu ne itam les confidences sur sa candidature jot na cee waxtaan as tuut ay restrictions ay projets ak ay trahison du ci ñàkk yoo xamante ne yooyu yëpp ci biir vie ba bu président Diomaye ci la ñëw yow Ibrahima Thiam mii bu la neexee kon ñu def ci portrait histoire Benjamin au gouvernement bii mu ni kenn du moom xam nga fu mu juddoo ñu ne Pékin la juddoo mu ne le jour de sa nomination il a fait le linge et nettoyé toute la maison. Uh-huh. moo tax ma wax la ko. barke sëñ Bamba lii de boo ko doon xaar ci Pape Ousmane si. Eh. dama koy def. aram mën na ko mën ko mënoo ko nan waxante dëgg waaye PM kay moo jekk mbaxane kay. Sonko ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax Sonko waar kàlla Sonko naka waa kër gi naka njaboot baa ñëpp ngi ci jàmm Walf Quotidien mu ne baisse des prix des et du loyer. mu ne mm-hmm. faible marge ça va pas être facile à régler fiscalité subvention c'est levier incontournable waaye chronique également de Ibrahima Anne à lire ci journal Walf Quotidien bu xam ñu dem xool beneen ëpp yéene kaay nu nu xëyee tey ci suba gi mu ne deux minutes pour lire l'essentiel ñu ñëw ci suukaru koor gi Pape Ousmane ba ma dalee liggéey ak yow ba tey ñaar fukk musuma la ko nag te pourtant yow Pape Ousmane daaw am na ñu doon wax de daaw ci plateau ya nga daan toog da nga daan joxe suukar koor waaye ren café ak su ñëw joxoo nab joxoo ma joxoo arab joxoo kenn joxoo tous ñebe muy gudd waaw ah, ah, bu dee da yaakaar ne ah, coowal suukar koor bi la yam ma bëgg la xamal Pape Ousmane ne la suukaru koor ba ma nga ca grande mosquée de Dakar ndax coowalu suukaru koor bii imam ratib bii nee na moom musul laaj ne benn beneen bi ci topp mooy musta jot loxo bu tibbee ca présidence dal ci poosam na leer. kon xaalis bi fu mu daan dem. ah wax dëgg yàlla ngoone Saliou laajal aram ba xam ndax bu ci def point. Ah. <laughs> aram dañ ko intercepté wala dañ koy point. Ah. ban point d'interrogation dugal aram nag. <laughs> aram nga wax bi yow ñëw ma sax teg point ba te ma ah point wala ban la. Ah. interrogation interrogation. dëgg de père est-ce que dëkkul Wakaam. ngoone ngoone Israël nee na moom point d'interrogation. ah déedéet parce que xaalis bi daan jóge yu ne di ñëw chaque année ci ñoom. ba tax ñoom ñuy laaj moom nee na mosut a jot. mosul laaj kon da daan dafa am ko daan jël intercept affaire te. ah <laughs> loolu loolu loolu logiquement loolu war a doon mais daal daal weer ma ci def direct news mu ne gouvernement bu Sonko bi mu ne pourquoi le PDS n'a pas siégé Yewwi Askan Wi et Wallu mu ne dañoo trouvé woon benn formule généreuse dénommée intercoalition mu ne qui avait produit des merveilles mu ne lors des dernières législatives avec à la clé 80 députés pour cette entité mu ne mais une fois arrivé à l'Assemblée nationale wàllu dafa désolidariser wu ak waa Yewwi Askan Wi lors du vote également de la motion de censure contre le PM Amadou Ba initiée par Yewwi wàllu itam dafa démarqué wu mu ne dans beaucoup de cas à l'Assemblée nationale PDS n'a pas surfé sur les mêmes vagues que Sonko et mu ne loolu itam le les mu ne waaw <laughs> yéen a am fit nag ëpp leen fit ci réew mi mhm. yéen ak yeneen ak yeneen yëral yéen kaay bii di direct news libération ñëw ci beneen upp euh, révélation mu ne délinquance fiscale présumée autour du projet GTA EFA génie civil marine Sénégal coincé sur 17 virgule 637 <laughs> milliards de francs CFA mu ne après un contrôle la filiale de l'entreprise française a été redressée par l'unité mixte fiscale et douanière mu ne le tribunal également se prononce demain sur l'opposition d'EFA Génie Civil Marine Sénégal mi nga xamante ne dafay contester lii di euh, redressement ginnaaw libération yéenekaay yi ñu dem ci beneen ëpp journal ay ca sama yaram dafa tàng vox populi passeport diplomatique yii mm-hmm. na bu baax am nga amoo yow. naa ah, aman maa yàlla def na ne ma dama tekki da nga njëkkantu wax noonu rek ñebe muy but bu ci tekkiwu ko. ci loolu avant ñuy commencé lan nga waxoon. naa nag go avant ñuy commencé lan nga waxoon. da ngay laaj ci voyage dama pare maire ba doon ñaxtu. ah maire ba doon ñaxtu passeport bi. Hmm. Ah. aji mbergaan kan. waaw aja tam dañoo teel a ñaxtu de. ah yow yow est-ce que voyage passeport diplomate yooyu la nga dugg woon da ngaa bi de. uy ma. man nag wax dëgg yàlla passeport diplomatique man ñi fi nekkoon bi ma ko jox ku la bëgg jàpp na jox passeport diplomatique. ngay dëgg passeport diplomatique dañ ko wax a jox ñi ko soxla ak ñi nga xam dañ cee wax a voyager. waaye passeport diplomatique boo xam passement day am jox gelam Eh, ñu ngi ci ñëw bul développé jox bi bul développé ah, bul développé maa la ko passeport diplomatique yi nag bul développé bul développé joxal lañ bàyyi après ñu xuus mu ne ah. sauf disposition contraire prise par le président <laughs> Diomaye ñii di ancien ministre yi ñii dégg ex <laughs> ñii dégg ex mu ne ak secrétaire d'état yi mu ne ak seeni conjoint yokk ci cohésion dañ naa ko bëgg a def le masculin rek l'emporte sur le féminin waaye da nga waroon de conjoint entre parenthèses ubbi def të. Ah. mu ne union droit depuis le 28 mars 2024 waaye barki sëñ Bamba. réew mi bi Bassirou Diomaye Faye faloo ba tey la woon daa mel ni dafa commencé woon ni yaa ngi dégg. aji mbergaan kanu tee ngi ni yaa ko nu tudd waaw moom nag dafa def benn liñ tubaab naan coup de gueule mu ne après daal mésaventure bi nga xam ne jot na koo dund ca ay AIBD mer na ba fa tudde ci kanam dinañ ci ñëw mhm. saisie record bu 1137 virgule 6 kilogrammes de cocaïne à Kidira man nag gis nga cocaïne giy dugg nii ci réew mi lii def na ma kaa torop mu Ndiaye Cissé secrétaire exécutif bu ONG 3D Pape Ousmane mu ni waaw jub jubal jubanti yaa ngi dégg mhm. mu ne ne doit pas être un simple slogan mu ni non plus être sélectif oui mm. Adam nee na ko waaye il a tout à fait raison sur ça. après dinañ ci ñëw ñëwal bu xel ñu dem gannaaw Vox Populi bés bi le jour dossier OFNAC bi Cour des comptes parquet financier mu ne corps sous contrôle Diomaye président dafa proposer benn appel à pour le président de l'OFNAC na bu bu la neexee postuler mu ne un cas pour Sonko sauf si l'OFNAC est dissous ah, enrichissement illicite risque de conflit de compétences mu entre le parquet financier ak président OFNAC Cour des comptes également responsabilité des ordonnateurs en question le journal euh, on parle ce matin ginnaaw gi ñu l'évidence Pape Grand Prix international Cheikh Ibrahima Niass hmm. pour le récital du Saint-Coran. Le Sénégalais, Pape Ousmane Cissé, pardon, le Bangladais. <laughs> Abi R. Shahidallah. noonu la tudd. Mhm. Shahidallah Shahidallah. Mhm. mu ne remporté na 10 millions de francs CFA tubaarkalla macha allah. xaaloo sama cat sama catu morom sama xaalis xëy na. macha allah xaalis bi bari na. gañe mhm. na ko nag ci grand prix international bu Cheikh Ibrahima Niass boo ci coful du ma la baal. dama ciy cof yokkale ci ne la. Mm. Euh, merci beaucoup Aram mu ngi koy wax sax troisième prix euh, prix bi. Mm-hmm. c'est un mm. ah euh, nga xamante ne mu ngi wuyoo ci turu Maay Touré. Mm-hmm. moom 4 million la yóbbu. macha ki jël deuxième moom imam Ramadan la égyptienne la yóbbu juróomi million. Mm. ah muy concours boo xamante ne bii mooy onzième édition. maanaam am na onze année mënul mënul waaye euh, doomu baayu aram la. Mhm. xam nga ñoom macha allah ture ture yàlla daf leen may. ci wàllu muy nag concours international la. Mhm. xam nga Bangladesh bi ngay tudd su ma la image yi nañ ko teertoo ca dëkkam. te loolu yëpp rayonnement la boo xamante ne day delluwaat ci Sénégal mi ñu xam. Mhm. ci arxuraan ci taxawaay te ku wax Baye. xam ni Baye moom da cee cëru. je sais pas ndax Maye Touré c'est le célèbre Maye Touré bi ñëpp xam te boo fàttali ko barki Dembo Ndiaye. ci mhm. korité bi. Mhm. déggoon nga le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mhm. di insister. ak a encourager initiative yu mel nii. mooy fu ne ñuy am di di di def concours yu ni mel. fekk na nag ñoom jiitu woon nañ bu yàgg parce que onzième édition moom mooy onze années. yoo xam ne ñu ngi koy organiser. te xoolal jàppal tour Cheikh Mahi Ibrahima Niass. moom mooy initiateur bi yëpp doom la ci Maulana Cheikh El koy ziar bu baax ndax moom sama soppe la moom ngay gis noonu ci photo bi noonu derrière waaw waaw mooy Cheikh Maay waaw ñu koy ziar bu baax di encourager parce que à travers initiative yi ci nga gisee am na yeneen yu mel nii yu am waaw man nag maa ngi maa ngi jàng nag dama yegg da ngay kii da ngay mokkal da ngay accélérer ambassade tajwidi tajwidi ni ñu koy defee daf ma ambassade ambassade Ngoné daa teel a xoolal daa teel a dem loge moom. waaw daa teel dem bu dee bu dee eh, xamante ma jàng alxuraan. <laughs> imaamu koñ bi imaam Fall. macha allah. ba tey mi ngi foofu. macha allah da ngay làq ko rek foo foo dama daan tem teg kay bi. Hmm. <laughs> nekk ko sama yaay moom yónni maa wax jeex na léegi xoolal wa in yaakaadul lazina kafaru laa yasbiqunaka. nekkuñu fi ah. ah. wax wi diine. fa zuuqu fala nazidakum ila azaban ila li mu wax bu fekkee may ture mi jël troisième moom mooy bi ñëpp xam. waaw neex alxuraan lool sax. Mm-hmm. Euh, ki ko gagné wax dëgg yàlla kon day wone ne compétition bi niveau bi. kawe na lool lool maa ngi Touré ku ko gagné concours international la yàlla xam ni. waaw dafa bëriwul sax ay te xoolal yaa yaa yu balaa ma koy ah, fàtte sax je pense que xoolal xoolal on me dit que y a eu 170 participants ci 30 pays. yoo xamante ne par zoom lañ ko doon defee d'abord ah, ci ci phase euh, euh, éliminatoire yi après nag ginnaaw phase éliminatoire yi ci la nag phase euh, euh, euh, ki finale yi am. te Medina Baye la amee woon. Ah, ci la Bangladesh bi mujjee. tubaarkàlla yal na yàlla tubaarkàlla. macha allah yàlla sàmm leen. rafet na rafet na jekk na macha allah tubaarkàlla. Mhm. recrutement abusif. gestion calamiteuse beneen dossier la déedéet du boobu bu ko bu ko boole bu ko taxalee bokkul léegi. waaw ma dara sa xel kii Mamour Diallo la Mamour Diallo mii dañu koo sommee ne ko wur. <laughs> gaawal kite Osnaz gaawal. Osnaz gaaw fii kite gaawal sans délai. wuy ma ne ko takkal say bagaas ah, arabee nee nañ ko ay waa ay waa li Golbert Diagne doon wax ne daal nii nga takk say ba diiril diiril diiril la yóbbu yóbbul Mamour Diallo yaa ngi dégg hmm. journal bi ko wax ne man wax ma ko balaa ngay dem journal bi waaw prestataire yi nekk ONAS waaw ci jamono jii hmm. ñu ngi woote foofu benn euh, point de presse xam lu ñu dénoncé hmm. recrutement des prestataires